su ma dellu si man la anti français ma dellu si fas yéene continuer ak yéen di leen jox xibaar maanaam di leen jox information boo xamante ne lu waraloon ba Macky Sall di yónni ay eh, criminal militaire am yi ñu ñëw jàpp kii di bayit laay mooy moom dafa fas yéene yéene eh, daw si ñëw nëbbatu fii Gambie donc balaa mu ñëw dëbbatu comme bay kii du bugg a mbalit mu dugg si réewam eh, moo war nag mu yónni ay bandiyaam ñu ñëw jàpp kii di bayit laay kidnaat ko dem denk ko ay bërëb su ko defee moom mu daw si ñëw dugg ci Gambia nu may wax ak yéen nii jël naa information ne kii di Macky Sall mu ngi nii Mankamakunda dem toog foofu ak njabootam e, dafa dugg si foofu guddi ñëw toog foofu nëbbatu foofu parce que Manka Mankamakunda kenn du gëm ne Macky Sall dina ñëw taxaw foofu kenn du gëm ne Macky Sall dina fa ñëw toog waaye ma yëgal leen ne Gambia Casamance Bissau even Sénégal xam ne Macky Sall nekku fenn mu ngi nii fii Mankamakunda toog Mankamakunda mooy dëkki Adama Baro foofu la Macky Sall ñëw toog kon ngeen xamee ko noonu loolu moo waroon mu fexeel ba Macky eh, Adama ñu euh, euh, jàpp kii di Baytulaay parce que Baytulaay moom moo nekk nit ko xamante ne moom lan daan joxante ay information pour mu mun a yëgal askan bi ne lii mooy dox lii moo nekkul di dox kon tey man anti français dinaa fas yéene pour yëgal leen ne lu waraloon pot bu benn jàpp Baytulaay mooy Macky Sall dafa façon yéene taal Sénégal ba pare daw si ñëw laaxatu fii bi kon joxe na ordre pour ñu rey kii di Ousmane Sonko ci biir Sénégal ba pare Sénégal su takkee yoonam nekku ci parce que France euh, dañ ko permettre tout mu dem bu foofu parce que dañu xam ne su demee foofu adduna bi dina xam ne ñoom bokka bokkaneen ci complot rey Ousmane Sonko donc ñu ne ko boo mu boo munee nee uti fan ngay làqatu nga def euh, mission rey kii di Ousmane Sonko ok demal nga def foofu parce que su ko defee ñun France dinañ ci set waaye France duñu musa set lii anti-français ne Macky Sall a ngi fii toog fii Mankamakunda nu may wax ak yéen nii laa am information ne Macky Sall a ngi nii foofu la dugg si euh, ba si arjuma si boppam si guddi bi bu nu jàppee kii di baytulaay euh, euh, moom dugg si na balaa baytulaay di dégg information pour mu wax ko fekkee jàpp neen baytulaay parce que si guddi boobul la militaire yi romba si moom Macky Sall si na Euh, si si guddi bi euh, suba teel lanu téye kii di baytulaay almaxruus kon ma yëgal leen ne lii moo sababu pour ñu jàpp kii di Macky eh, eh, Baytulaay Almahrous kon Macky Sall ngi ci biir Gambie fii pour Gambien militaire yi ñu dégg ko pour Gambien population ngeen dégg ko ne lii moo am te mooy dégg mu ngi nii Mankamakunda ana mu dégg information bi mu xam ne population bi yëg na ko mu daw waaye nu may wax ak yéen nii am na ku ko gis foofu euh, mu jox ma information mu ngi foofu waaw am na ku ko gis foofu civil nan man kooku civil ni man la euh, kooku damay liggéey ma parce que war naa leen ne man euh, am naa contact fu nekk am naa contact fu nekk even si biir palais Macky Sall am na yoo xamante ne dañ ma ko dee wax comme que yow yaa ngi liggéey ak nit am na yoo xamante ne suñ la waxee soo waxee rek boroom day xam ne lii diw moo ko mën a wax moo tax yu bëri du ma ko dee wax waaye lu lu lu jógee si si biir Gambie loolu ada Macky Sall sama yoon new ci sama yoon new ci waaye lu ma leen di yëgal mooy Macky Sall a ngi Gambie fii mu ngi ni Mankamakunda foofu la nekk right now maa ngi am message ne man mu ngi nii Mankamakunda foofu la daw si ak njabootam ñëw laaxatu waaye gannaaw laaxatu foofu mu ngi joxe hors de Sénégal euh, kii kii di Moussa Fall ak ay bandi groupement mi pour ñu fexe naka la ñu assassiné kii di président Sonko euh, kii di Ousmane Sonko ñu xamante ne moo nekk di jongante ak moom si biir Sénégal donc ordre boobu na Sénégal yi yëpp xam ne kii di Moussa Fall euh, moom Macky Sall bàyyi na ko ordre boo xamante ne ordre bandi criminalité la mu def fitna si biir réew mi euh, moom mu mu laaxatu fii bi place boo xamante ne kenn du xalaat ne président dina jaaxale ba daw laaxatu foofu kon ma xamal ne mu ngi laaxatu foofu fii di dëkki dëkki baro mooy Mankama Kunda manka makunda képp koo xamante ne Gambel la xam na ne baro foofu la dëkk kon ma yëgal leen ko ngeen xamee ko ne euh, euh, message bi maa ngi ko jotee euh, tey la le 12 on the 12 of June 2023 le 12 juin 2023 boobu laa jotee message bi kon ngeen xamee ne Macky Sall ngi fii moo waral mu yónni ay militaire am bandiyaam yi ñu ñëw téye kii di baytulaay waaye du lenn lu passé loolu waaw lépp luñ koy laajte ay fen la lépp lu luñ koy laajte ay fen la waaw ay fen kese la kon ma yëgal leen ni lii moo war loolu kon sénégalais yi ñoo xamante ne yéen a soxla seen njiit bandi bi ma yëgal leen seen njiit bandi baa ngi fii Gàmbi waaye lu war mu daw parce que soo gisee Macky Sall di daw xamal ne moom parewutu dellu gannaaw pour jaama am Sénégal su pare parewoon dellu ganaaw pour jaama am Sénégal seen Sénégal boobu kon Macky Sall du doon daw du doon daw waaye soo gisee mu daw mooy moom du dellu gannaaw Sénégal foog mu taal ko foog mu taal ko kon dama leen di xamal ne na ngeen moytu seen sëriñ yoo xamante ne ki Sall dafay euh, euh, euh, liggéey ak ñoom parce que ñooñu lay joxal ay ay mission yoo xamante ne pour ñu fexeel sonk be ñu dugal ko si ay problème kon sonk na bàyyi xelam dama koy xelal parce que doomi Casamance la man sama yoon new si si politique Sénégal parce que man duma sénégalais man sama yoon new ci man doomi Gàmbi Casamance bi saw la donc lu ma leen di xamal mooy man lu Macky Sall ak ay ñiñam di def suma nit ñi sama euh, euh, euh, daf ma métti tey dafa ma métti ëllëg kon ma yëgal leen ne Macky Sall du am fu mooy làqatu bi ma dégg ko ma suturaal ko loolu du mu sa am kon ma yëgal leen ne Macky Sall a ngi nii toog Mankamakunda mu ngi nii toog Mankamakunda ak ay njabootam dafay si njabootam mu daw ak ñoom si guddi arjuma maanaam guddi aramis la daw si suba arjuma la nu jàpp baytulaay kon affaire bi nii la demee wasalaam